bismillahi irrahmaani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullah guddik tey gi mooy guddik juróom benneel gi ci koor gi ak naafilam ñaari rakka rek la ñaari rakka bu ci ne fatiha benn yoon xul huwallaahu ahadun fukki yoon ak ñaar ñaari rakka bu ci ne fatiha benn yoon xul huwallaahu ahadun fukki yoon ak ñaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.